ni ñu saxoo di ko def saay su ne bu waxtu bi jotee ànd ceeg Grégoire Ngom Grégoire euh, ban yéenekaay la ñuy tàmbalee tey. l'info yéenekaay incha la ñuy ubbi waxtaane rek alliance bu yees gi lay jëm ci woteek législative ya jàppal nag ne li euh, taxaw na temm sàmm sa kàddu la ko duppee ngir rek euh, wallu Sénégal maanaam daal di koy sawee bokk na ci rek loo xamante ne ni moom la ñu daal di fësal Bougane Gueye Dany Anta Babacar Ngom Déthié Fall Khalifa Sall Serigne Moustapha Sy ba ca Thierno Bocoum ñoom ñooñee. Euh, jëmbal nañ lu ne mel lan fa yéenekaay nag dañu xamal ne coalition sàmm sa kàddu sauver le Sénégal taxawal nañu ko rek ngir fexe ba askanu ko Sénégal mën di rek am ay kilifa yoo xam ne daañu leen toogal foofee ca pencum ndaw réew ma doxe fa nag li nga xam ne daal moom mooy yaakaar ga ñu teg seen ak kaw waaye tamit fësal ab majorité parlementaire boo xamante ne ni dana am doole lool bu ko defee rek assemblée nationale dox na mu waree bu ñu sukkandikoo ci la fo yéenekaay lu ni mel moom mooy euh, gis-gis bu yees bi nga xam ne jot nañu ko samp le ak ci moom ci xët woowee nag nee na ah, ñoom ñii daal la ñu ngi nii ne fàng ci xëtug yëglekaay bi waaye tamit ah, ana rek ba fan la ñu jëm loolee bokk na ci laaj ba mu samp li ci leer leer moom mooy jamono ji Pastef dana demal boppam moom Pastef moom na Sonko daanaka assumé na lépp sas nag am na ci kanamu ko intercoalition yi nga xam ne daal ñu ngay taxaw tànneef tam am na tànneef bu am risque la rek ci moom élimaanu jëwrin yi bu ñu sukkandikoo ci le point actu ci wet gi jàppaleen ni Aïda Mbodj Mimi Touré ak Malick ñoom ñëpp ñu nga rek làqu ca ginnaaw Pastef bu ñu sukkandikoo ci yéenikaay bi bés bi le jour nañu combinaison la boo xam ne rek taxawal nañu ko ngir xeex Pastef taxawu PUR PRP ARC ñoom ñëpp daanaka ña nga ca biir sàmm sa kàddu jàpp leen daal ne pouvoir la rek boo xamante ni jamono ji ah, ñoom matewuñ daal lañu leen fi ah, tege bu ñu sukkandikoo ca kàddu ya ñu yëkkati ñàkk yaakaar tam maanaam bokk yoroo wala yaakaar bu tas ah, ci ndaw yi bokk na tamit la ñu gis na ci cëm la ñuy waxtaane daal moom mooy ab majorité bu am solo nee nañ nag la ñuy fort ci yow bay daal jamono ji mënees na nekk Barthélemy Dias moom mi sax la ñu fas yéene jël tabb ko a def ko tête de liste ci mortal combat la toll bokk na ci itam loo xam ni kay mu ngi koy waxtaane Abass Fall moom ma ngay rek avertir Barthélemy Diaz jàppaleen daal ne nee nañ daal moom mënuñoo nekk ci parti euh, boo xam ne daal mu ngi ci pouvoir ba pare te mënuñoo contrôler Ndakaaru Njaay gëlee taxawu Sénégal am na tamit ab sas maanaam rek basuka euh, téye li nga xam ne daal mën la ñu duppee ji borom Ndakaaru Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr des nañu tamit war a leeral seen ak diggante loolee bés bi le jour yéen i kaay moom moo ko ne fàng ci xëtam bu njëkk le quotidien ah, le quotidien jël baaraamam teg ko ci sa pour la république ma ngay wër ay fasam bu ñu sukkandikoo rek ci yéenikaay bile ginnaaw nag parti démocratique sénégalais ak réew mi fi ñu nekk nii daal ñoom ñoo ñe ña ngi ko langal ñi nga xam ne di daal ñoom ñooy waa Aly nguy Ndiaye bu ñu sukkandikoo ci ko ah, le quotidien ah, le quotidien Pastef am na xel moo xam ne daal moo ngi koy xalaat loole direct si ñëw si yéenekaay moom moo ñu koy eh, xibaar tey jii ni ginnaaw nag woteeg législative yi les projet bu bees samp na Pastef nag jàpp leen daal ni eh, loolee eh, la bëgg buñ koy fàttali daal moom direct news nee na ba Macky Sall yegg see nag ci nguur ak Sénégal atum 2012 daanaka jotoon na rek tënk maanaam limité loole di aju ko vote ci candidat présidentiel yi loolee nag daal di woon rek génne maître Abdoulaye Wade ci sampat ndëndam Ousmane daal la muy xalaat jamono ji bokk na ci soppiwaat ndey charte réew mi nga xam ne euh, moom la mu ca fas yéene dëxëñ daal lu leen dul fexe daal ba tere képp koo xam ne mës ngaa doon ab njiitum réew nga dellu si waat daal di samp sap ndënd appal wala rek boo xamante ni daal ne nañ euh, moom Macky Sall rek la daal di visé ci ne mel moom moomee nga xam ne daal dañu ko fas yéene wecc li nga xam ne moom la fi sampoon direct news yéene kaay sax nañu sa nopp nag dana dallu ndaxte Eh, la ñu fas yéene rek samp na gi ni beneen ak luwa nag du leneen lu dul eh, képp koo xam ne daal yoon daan na la ci wàllug ger wala boog détournement daanaka dootoo mën a nekk candidat ab luwa la nag boo xam ne direction news yéene kaay na moom Ousmane Sonko ñamu cay visé nag du ñu leen ku ñul Khalifa Sall Karim Wade ak ñenn ci politiciens yi nga xamante ne jamono ji ñuy àddu seen i dossier ah, ña nga ca wàllug yoon usmaan Sonko loole daal lay nas na gi ne ay ñu sukkandikoo ci ah, direction Quotidien ci wooteeg législative yi lee samp na laaj jëmale ko ci PDS ñoom ñoo ñi ana lan la ñu nekk rek di def jamono ji bokk na ci daal lu yéenekaay bi samp na ginnaaw laaj ginnaaw nag ba ñu dooleelee président Diomaye fi ñu toll nii daal ñu ngi rek ci ginnaaw Macky Sall Doudou Wade Tafsir Thioye Woré Sarr ak ñeneen ñoom ne nañ loolee furaas daal di xëddeen duñ ko dégg Pastef daal li ci leer bu leet moom mooy nag fomp naay aliyem ya mu àndaloon ngir am ndam ci woteeg présidentielle yi le la mu bëgg moom mooy yóbbu boppam kott ca woteeg législative ya

Walf Quotidien yéenekaay moom waxtaan nag mbirum campagne électorale beeg jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllu ko koom ñeel presse bi lee daal ñu nga ca épreuve ko neutralité bokk na ci daal Mamadou Ibra Kane bu CDEPS la muy waxtaane moom njiit la nee nag yi lekk média jamono ji daal la ñu nekk def moom mooy wëri pexe ngir daal di xaatim ay convention ak yenn ci ay candidat Ibrahima Lissa Faye di njiital appel moom la mu wax moom mooy bu fekkente ni nag ñoom tasum xibaar daanaka daal dugaluñu seen loxo ci fi ni mel am ab tànneef bu ñu mën a def ci lekk candidat Euh, wàllub guerre bokk na ci daal loo xamante ni daal la ñàkkub euh, jumtuwaay la ci wàllug presse yi bokk na ci daal loo xam ne tam Ibrahima Bakhoum mu ngi koy waxtaane euh, ci biir tukk yëglekaay moom mi nga xam ne formateur la ci wàllug journalisme wéy ci yéenikaay yi wax ci Vox Populi quotidien mi nga xam ne nee na jàpp leen fanweer nag ci ay migrants lañ yoo xamante ni daal faatu nañ seen ak yaram sax des di yàqu ñu daal di leen for ci géej gi buñ koy xayma daal opération yooyu le di wéyal buñ koy xayma rek jamono ji Moustapha Senghor la mu xamle moom mooy mënees na nekk nag gaal gi nga xam ne daal fukki fan ak ñett ci weeru août la bàyyee ko woon foofee ca boru ko Mbour téye leen ko ëpp na rek uh, lu toll ci yoo xam ne ñoom ñoo ñee ñoom ñoo ca yéegoon na la tribune moom ci jëye yi lee la mu wax moom mooy gi dafa tële bokk na ci nag ay régime uh, loo xam ne daal jot nañu ko jël ci ay mesures lépp loo xam ne daal tax na jamono ji terewul ndaw yi lee daal di rek wutali géej gi foofu sax ñu des di fa faatu vocation gouvernement bu ñu koy fàttali daal moom mooy fexe ba waa xëy daal di am ci après waaye loole matalewuñ ko benn yoon la ñuy def daal moom mooy fu commerçant laal di lal ñu daal di ko fa jëlee bokk na ci dak lu indi rek ñenn ci ambulant yëpp amatuñu ab xëy ñeneen ñuy waaj xëy nag moom mooy ndongo daara yi jàppale nag ni école mu ngi waaj a ubbi waaye daal école tam mu ngi janoo ak ISAS Moustapha Momba Guirassy mi jiite l'école bi le la mu janool jamono ji rek na gi nee jafe-jafe bokk na ci daal jàngalekat yoo xam ne motuñ nañu naka noonu tam ci ay salle de classe ak i table banc ay abri provisoire maanaam li nga xam ne moom mooy jàngukaayu nëgandiku buñ koy xayma rek euh, déperdition tam am na ci wàllu lekkool bile ay grève ak lépp loo xam moom moo ñeel wàllu wile bokk na ci daal lañu nes ni jamono ji di euh, xayma loolee day intrant yoo xam ne ñoom autorité yees yi jot nañu ko caa teg anaf wanneen ci di mu jëkki gëtam des nañu cay laaj mbiruma Lat Diop jàppale ni les échos euh, la ñu ko wooye woon jamono ji daal lu wuute lool ak li nga xam ne jamono ji moom lañ ci nekk di wax garde à vue nañu ko nag ba ci diiru ko ñaari fan Lat Diop démb ñetti waxtu def na ko daal ñu ciy waxtaan ak moom jàppaleen daal ni jamono ji wàllug enregistrement illicite la ñuy waxtaane ci moom enquêteur jamono ji la leen ñor leen rek lu dul salaire am ak i charge yi nga xam ne jot na ko am enquête euh, bile euh, des di woy jàppaleen nag ni Lat Diop ndax dafa am ab laaj la boo xam ne leer bu leer daal moom mooy ay compte bancaire am ak i otoom rawatina lépp loo xam moom mooy œuvre d'art tamit des nañ di ko waxtaane waaye li ëllëm yéen kaay moom mooy patt pattaaral bi nga xamante ne ni ñii di waa LONASE jot nañu ko def constitué wuñu partie civile ci coowal lu ni mel la Chérif Ndiaye moom la ñuy waxtaanee ca Tukawi sport yéen i kaay Chérif moome def na jéego démb étoile rouge de Belgrade daan na Partizan Belgrade ñeenti bal ci dara ñett ya nag Chérif Ndiaye moom moo ko dugal ca biir caax ya ab triple rek boo xamante ni nag dugal na ko rek ci biir taarixu ko bile club waaye tamit bile ko champion ndaxte buñ koy xamee rek moom mooy joueur sénégalais bi nga xam ne daal du ab serbe bu njëkk bi nga xam ne wut moom mooy sénégalais bi guléet gis koo xam ne daal du